pour Rewmi 24 TV. Baay waay baay waay sa waa ji dégg ko waxal Qatar la jóge ah. Ini bisa sooy wax te li gisee man nit ki toujours da ngay jël mbalit sotti ci kaw. ah yow da ngaa gëm ne lii mbalit la. waay waay man soo ko sori waroon daal mu naan ko ba mu nekkee impôt man mu naan ko ba noonu leeroon nañ. foofu la doon lan na le. bu doon kay dem kay ay milliards. léegi kon gars yi lu leen dese pour ñu wax ko. ñoom wax ko la. léegi luñ ko luñ ko dese pour ñu tuumal ko léegi lu leen dese. xalaat mu nangu jàppale président bi. ñu ne sàcc na Marème Faye Sall. <laughs> Sonko moo sàcc Marème Faye Sall moo moo des. <laughs>